yaakaar naa ne kenn mënu ci ko génnee ci presse ndax dix ans du ay caaxaan te lépp ci presse laa ko def kon alhamdulilah bi ñu yàlla boolee ñu jotawaat tey war a waxtaan waxtaan bu am solo maa ngi leen di sant maa ngi leen di gërëm di aussi ci retard bi waral ma guddee ñëw dama juge aéroport rek ñëw ci yéen waaye amu péage bi amul ci péage bi moo ko waral ñoo ngi koy jégalu ñoo ngi tuub te jégalu. Mhm. bisimilah. ci biir loolu tey nga daal di jóge voyage. daal di def tournée gis nañu nga njëkkee li nga xam ne moo di Angleterre jóge fa dem Paris daal di fa jóge daal di ñëw mën nañu xam exactement tey lan moo waral nga woo fi presse ak vente bi fan la toll. jërëjëf kontaan naa ci question boobu waaye balaa maa ñëw ci loolu damay ñëw ci omage boo xam ne tey dama koy rendre jëmee ci ñaari jëmm yu génn àddina. yalla suuf sedd sen kaw ak genn jëm bi fi dess ñu ngi koy ñaanal mu yag fi teewer bi tax nak ñu leen rendre hommage moy ñom ñëpp ñëpp tay ki waral sama togaay fi ak ki waral sama kat ak ki waral sama taxaway ak ki ma yóbbuwoon bitim rew ma and ak mom def liggey bu am solo bok ma def ma del soit di président wali Ballago sek son excellence euh bayam di chon Ballago sek dafa def liggey bu am solo ci jëmum waye def ay valeur ci jëmum waye amit lu mu def ci mom ci walu liggey jëm ci carrière kon tey bu président génnee album international fekk fi Papa sama yaram daw sama xel daw ma jël sama responsabilité dem ba fa nag taxaw jënd CD ne jëndal naa ko Papa loolu yaakaar naa ne li ma war a def rek laa def CD bi ma jëndal Papa nag di ko ci rendre hommage dama koy jox xaritam rakkam doomi ndeyam Youssou maa jigéen Ndour laa ko jébbal li waral ma koy jébbal Youssou parce ñun biñ juddoog léegi yàggul waaye xam ko kóllëre ak ànd wu rafet bi dox ci diggante Youssou Mari Sène ak Thione ko Seck kon tey loo war a jëbal Thione newu fi boo ko joxee Youssou mel na ni yàgg na moo waral album bi nga xam ne jëndal naa ko Papa Thione ma di ko jëbal ki nga xam ne mooy Youssou Madi Dieng ma jëndaat ci beneen album di ci rendre hommage Moumi Dani album yaa ngi nii awana bi fii la benn bi ma jëbal ko Papa Thione Youssou koy nangu waaye beneen bi ñu jéggal ko ki nga xam ne mooy Moumi Dany mi fi jóge barki démb Ndiaye tax suuf sax tubaarkàlla seddugul ci kaw ndax ñu ngi koy jooy ba léegi ko noppeeguñu ma koy jébbal ki nga xam ne mooy borom këram di léppam di Bougane Gueye Dany Bougane mu ngi lay jaare si soxna si te di la ñaanal yàlla na saraxam yàgg ci sa loxo yàlla sàmmal na njaboot bi ngeen sëkk ba li nga ci yéene yëpp yàlla defal la ko incha allah ñetteelu seede bi nag dama ci rendre hommage koo xam ne tey waxuma la waali waaye bàyyi waali la daan jàppale ci wàllu aar ak ci wàllu showbiz ak ci wàllu caada ak cosaan ay bàyyiwaale ku mel ni papa Youssou Ndour papa Thione papa Omar papa Baba Maal papa Ismaïla kii ma gënal ñetteelu CD bi di ko rendre hommage di El Hadj Ibrahima Ndiaye origine SA studio 2000 dafa def liggéey bu am solo fii ci réewu senegal ci wàllu culture waaye def ko ci wàllu caada ci cosaan waaye def ko it ci wàllu war a tey mënatoo wax musique sénégalaise te doo rafet njort ci ni base bi El Hadj Ibrahima Ndiaye la. ndax ba benn studio amulee ba artiste war a mën a produire di génne luy wasaare seen musique ak seen way El Hadj Ibrahima Ndiaye ko def ba tey ñu mën a wàññi ay téeméeri téeméeri studio ba bopp boo jàdd tey fekk fa studio ba mu metti moom rek la woon Ndiaye moo war a ñu rendre ko ci hommage jébbal ko li nga xam ne mooy troisième CD bi maa fii damay ñëw ci li nga xam ne mooy fi vente bi toll vente bi fi mu toll mbégte la kontante la xol bu sedd guy la diggante le 6 octobre ak tay li génn ci ay CD au niveau national ak international kenn mënu ko wàññi waaye yi nga xamné tay tey FNAC jël na ci ay responsabilité ne yi artistes internationaux seeni album man ma koy jaay président wali balagu sek mo fa jël deuxième meilleure vente FNAC meilleure vente FNAC à partir du 6 jusqu'à maintenant 19 président Waly Balago Seck moo jël deuxième loolu nag day wane ni album bi africain yi sénégalais yi gambien yi man monde entier ñoo ko bëgg ñoo daw sëkkatoo ko ñoo daw jëli ko waaye ñoo daw jënd ji ko boo demee tey génn Fnac ci vente bi nga tàbb fi nga xam ne mooy top 100 ca Amérique Wally mi ngi fa jël li nga xam ne mooy 49 49e position ci ñi nga xam ne tey ñoom lañuy ñuy a déglu ci wàllu plateforme yi nga xam ne à travers le monde ci lu ñuy dégloo way yi nga xam ne moom la ñuy jënd ci internet bi président Wally Ballago Seck mi ngi fa jël 49 heures mu nekk loo xam ne fierté la sac la ndam la ci képp kuy sénégalais nga am ci ndam am ci xol bu sedd am ci kontaante waaye fierté la fierté goo xam ne tey képp kuy waykat ku yeewoo Sénégal tey war ngaa yëg sa bopp ci xam ne sa doomi réew mii sagal na la ma bëgg nag yee sénégalais yi ci benn pàcc mooy nanu bàyyi bu sunu nawle jugee ci réew mi dem bitim réew war a jëli raaye ñuy gis jëmmam waaye dama ne bu ñu nekkee Sénégal nañuy gisante ci suñu biir amul problème na Modou yi gis Samba Samba yi gis Demba Demba yi gis Paate Paate yi gis Modou Modou yi gis Assane mais bu ñu xasee ba sortie internationale am ku génn ci ñun réew la représenté ku génn ci ñun rek drapeau la représenté ku génn ci ñun rek askan la représenté kon nañu leen di dooleel nañ leen di sarkal nañ leen di sigil loolu nag mbégte lañ ci am parce que sénégalais Faramare nii wanuñu Wally ginnaaw benn yoon cofuñu ko benn yoon néewuluñ ko doole benn yoon seetaanuñ ko benn yoon streaming bi boo duggee ci réseau yi nga dugg ci si internet bi ñiy jënd tey par carte ëpp nañu vingt fois ñi nga xam ne ñu ngi jënd CD physique te streaming bi nga xam ne mi ngi am tey ci réseaux sociaux yi day compter day bokk ci li nga xam ne tey day jur disque d'or day jur disque platine boo demee ci seen YouTube yi seetaan gi ngay seetaan album bi ci chaîne YouTube di aimer di partager vues yooyu muy am day bokk tey ci li nga xam ne tubaab bi daf koy wàññi jëmee ci li nga xamante ne moo war a indi disque d'or wala disque platine te yooyu yëpp sénégalais yi bàyyiwuñ ko ginnaaw faramareen yi bàyyiwuñ ko ginnaaw africain yi bàyyiwuñ ko ginnaaw kon li ma leen bëgg a dénk rek mooy la presse sénégalaise ngeen xam ne vente bi moom tubaarkàlla macha allah mi ngi dox bu baax a baax a baax a baax a baax li tubaab bi njëkk a génnee muy cinquante pour cent bi jaay nañ ko ci trois jours vendredi le six la ko génnee mardi le dix CD amatul France man dama obligé ñëw le président Wade ne ko dina am gàcce parce que ma ngi dem Angleterre jël fa ay précommande jambour jël fa ay xaliss jambour plus de 20 millions CFA jël naa ko fa ci ay xaliss CD te gisatuma CD nu may def président rek ci alalu bopp 3000 euros 2 millions CFA nama ma ko may wëral France nga jënd ci ay billets train fo dem bo guddee nga jël ci hôtel nga fanaan nga wëral Gambie yooyu seen CD ngir jëbbal lañ ko ndax mooy sa te mooy sama sac dama obligé di topp dëkk yi Nantes Nice Marseille euh, euh, Strasbourg Monaco tubarkàll ba ba fi nga xam ne mooy Lyon bàyyi mu benn dëkk fu di nekk dem naa ci fanag yi ak cultura yi ngir récupérer fa li nga xam ne mooy ay CD ngir jébbal ko ñi nga xam ne ñooy waa Gambia people kon vente bi dalal leen seen xel ci ni mi ngi dox baax a baax a baax a baax a baax te kanam la jëm. alors ko moom mooy a wax ci waaw euh, pirate moom ñun fii lañ ko fekk fii lañ koy bàyyi ñun fii ko fekk. fii lañ koy bàyyi waaye ñun amuñu ci tiitaange ñun ñu ànd ak njabootu président Wally Ballago Seck suñu yoon newu ci piraat parce que xam nañu ñu ñu ko sëkkal muy suñuy soppe xam nañu ñu ko sëkkal ñuy askanu Sénégal xam nañu ñu ko sëkkal ñuy Faramareen yi Faramareen yi yàllaa leen nattu ci bëgg ak cofeel ak yëg ak fonk jëme ci président Wally Ballago Seck ñooñu tal nañu leneen lu dul di jënd CD 500 ak CD 1000 francs gàccale ci ñoom rus nañu ko parce que xam nañu ne du lii mooy jàppale seen artiste yeewu nañ ci kon ñun wàllu pirate yooyu fii la coow li amee Sénégal waaye ñun ñu ne woon foofa bitim réew Dakar la tubaab bi na ci liggéey bi duñ toog ba waxtaane wàllu pirate parce que xam nañu ni ñu ñu bëgg danañ jënd CD original bi muy CD physique bi nga xam ne moom laa téye. balaa ñu génn foofu lan ngay tontu tey parce que ñi ngi doon wax que ni euh, album bi nga xamante dafa am li nga xam ne moom mooy pirate pirate. Hmm. Euh, wàllum disque d'or bu fekkee ni tey moom nga bëgg bu amee ay pirate a am. Hmm. ñu bëri jàpp ne stratégie la boo leen teg lan ngay tontu mooy damay dénk sénégalais yi ñaari baat bépp sénégalais boo toogal rek mu naan la waaye day jënd disque d'or bu la taxi rombee arrêté ko te yóbbu faan waaw loolu moom man maa la ci jox ndigal ndax wéré di moom mënta weesu loolu dama ne senegale boo toogal moo la disque d'or dañ koy jënd bu la taxi rombee arrêté ko te yóbbu faan xam ne wéru ndax bu dee man mii maa dem Angleterre récupéré fa vingt millions CFA ñëw album bi génn mënumaa gis CD man ci ay alalu jàmbur ay xaalisu gambien yoo xam ne dañ ko yëkkati jox ma na ma demal nga jëndal ñu ay CD ñëw ñu yóbbante suñu askan ak suñuy cosaan ak suñu waa dëkk ak suñuy entreprise ma jël seen xaalis wàcc France di wër CD gisuma ko kon tey ku taxaw na la risque doo dañ koy jënd rek ñu ngi jaaxaan di saw te jaaxaan di saw balaa kenn tooy yaay njëkk tooy bokki ma leeral leen ne tubaab bi léppam da ko teg ci yoon Omaro moo yàqamti li waral ma ne Omaro moo yàqamti mooy Omaro moo am cofeel ak mbëggeel goo xam ne ci président Wally Ballago Seck jàppoon na ni album bi bu génnee le 6 moom la 10 te jot ci disque d'or bi loolu Omar la loolu Omar la ci cofeelam Omar la ci yëg-yëgam Omar la ci yéeneem Omar la ci bëgg-bëggam waaye tubaab bi doxewul noonu tubaab bi léppam da koy teg ci yoon léppam da koy teg ci yoon li traçabilité moo ñor tubaab bi tubaab bi ay CD yu ñuy jënd ak yu ñu jëndul ñoru ko xam lu ko ñor mooy lan mbir mi na jaar fi mu war a jaar nit ñi xam ne kat affaire bi nit ñi dem nañu taxaw ci Fnac yi jël seeni i carte jënd ko wala boog def nañ seen i précommande wala seeni i commande ci internet bi ñu livré lañu benn nit mënul jënd plus de cinq CD ci benn fan mënul nekk kon képp ku doon ne CD bi disque d'or nañ koy jënd mu ngi lay nax mi ngi nax boppam parce que yow bu fekkee da yor un million te mënoo dépasser cinq CD par jour mais foo jëndee disque d'or dañu waxante dëgg un million da nga koy yor mu ne sa poche nga yéen ko waal yi un million cent cinquante CD la mille cinq cent euros CD beneen bi dix euros lay jar yéen nga ko président bëgg nga ko jàppale te yàlla tax mais mënoo cay weesu cinq CD mais cinq CD par jour si mën a nekk di toog di ko xaar ba un million cinq cent yi jeex wala un million yi jeex mënul nekk kon tey ñi nga xam ne ñooy wax naan album bi disque d'or dañ koy jënd ñi ngi nax seen bopp disque d'or la liggéey la boo xam ne du lu ñuy yàqamti du lu ñuy parax paraxee du lu ñuy sorox sorox looy génnee bi Top communication top stratégie de campagne def li nga wara def wax li nga wara wax la nga nga bayiko ci bi ay ay suivre vente dama bëgg ngeen déglu bax li may wax nan CD wa CD ñu luñu ñu luñu loolu amul France. Abonnez-vous Thiowli Sénégal abonnez vous Sénégal. Abonnez-vous, ciao le Sénégal. Abonnez-vous, ciao le Sénégal. Abonnez-vous, ciao le Sénégal. ndax man li ma soxla ci xibaar yu wér te woo coow le Sénégal.